mais plat plat boo xam ne bii moom bu ma ko defee sama jëkkër moom macha allah boobu laa bëgg plat la waaye yaa ngi ciy ñëw <laughs> plat yi nag chéri bari nañ mhm. mais nag damay wax ne tout le temps jigéen bu nekk mhm. moo gën a xam li jëkkëram bëgg mën nga conseiller ñu def ay grignotant fii yeneen yu sew sew ay bagage ah dégg nga boobu mënul ñàkk mhm. mais nag ku nekk tey war nga xam li sa jëkkër gën a bëgg na mën

Je gis ko fu nekk di <laughs> fu ne xeetu baax baax gis ko comme genre yi comme yu mel ne papillon yi mm-hmm. sama classe bi ay lu ma lay <laughs> ah, murale

en fait rideau yi mhm. pratiquement booy xool ci biir néeg bi fépp la mën a dem fépp la mën a dem te bu la neexee aussi booy génn mën nga ko laal parce que c'est tellement léger booy ñax yooyu yëpp daanaka euh, xet bu neex rek lay am sooy madame Thioye waa trousseau yooyu baax na de gis nga la neex gàddu yóbbaale moom dafa am classe waa gis nga <laughs> trousseau yi trousseau yi plutôt pour def ay ay effet de toilette maquillage et autres voilà lepp li nga xamné dang koy soxla. pour pour sa bagage yu sew rek pratiquement mën nga ko jël def ko ci biir. voilà mën na def aussi ay bijoux. Ah. mën na def aussi ay bijoux. gis ngeen bi kër bi I love you. nooy nepp fu neex a tëdd yaa ma gën a xam te bu la neexee tëdd ba guddi mais day aar stress lu gën a garaaw loolu ñoo ko waxandoo léppañ ci biir yor bari na macha allah rek lay xewee nag fii ci madame Thion gis nga bari na waaw bu ñu defee émission bi passé macha allah wàccee waat nañ ci lu bari moom it mu ngi dem partout dans le monde ndax xam nga mm-hmm. jigéen yi yu nooy yuur naay si rek la ñuy wër. waaw waaw yu nooy xam fi ñu ko war a amee. ah jàmm bakkan jàmm la bëgg nag. su ko mënee xam te am na couleur bu nekk nag. couleur bu leen jaaxal am na fi fii rek lay xewee. daal def sa kaw lal rek. waaw gis nga yaa ma gën a xam couleur daal di ñëw. waaw am na deux pièces yi am na cuuraay yi. waaw voilà de pièces yaa ngi. deux pièces euh, gis nga cuuraay yi cuuraay yi. dama emporte ak lumière bi xet bu neex gi. waaw gis nga affaire yi moom macha allah. waaw gis nga parce que boo génnee tey ci Niger dama leen koy digal. deux pièces waaw deux pièces yi nañuy nañuy sañselu ànd. dëgg la ñoom danañ xam fi may dégg fi mhm. may waxee nañ dégg fi may waxee. dafa am solo nañ ma bàyyi la defar rouge ci kaw di ma defar somo ci suuf. dëgg la voilà mu ngi nii ensemble yi rek. am solo Sénégal jëm kanam. ak cuuraay xeeñ neex yi. yaa cuuraay moom moom moo ma dàq. mu ngi ñëwee ba ci kër gi rek. waa loolu nag yàlla yàlla def na ko parce que xam nga comme ñun ci loolu lañ yëngu moom. dëgg la euh, baril yeeg siwo yeeg ñoom seen yooyu. waaw gome xooj yeeg. Mhm. Euh, ceeb yeeg affaire yooyu. sarxataan yeeg yëpp ci biir. waaw gis nga waaw mënul ñàkk nekk loolu daal gën a xam mu ngi noonu. li tax toujours damay am envie di toog ak moom du ma bëgg émission bi jeex <laughs> mais dafa am tout benn question bu ma ko war a laaj. yaay mhm. booy comme euh, gis nga xeetu baax baax yi. Mhm. dama dégg ñu naan góor dafay am lépp ci këram. dara lu ko manqué guddi gi day neex moo mooy loolu daal macha allah. Mhm. ba pare génn di dem doxaan est-ce que loolu yow sa xel loolu est-ce que mën na li nekk daal. waaw loolu loolu chéri yi damay ne mën na nekk mën na nekk waaye du yàgg xam nga loo xam ne du durée. Mm. mën ngaa bàyyi borom mu essayé ji dama koy faral di wax. Mm-hmm. parce que gis nga dafa am benn exemple bu terre à terre bu may faral di jox. Mm-hmm. sama moromu jeeg ji. ma def parenthèse tout le temps ñëpp maman maman léegi am naa ay doom fépp dans le <laughs> monde entier. man sax ci laa bokk nag yaay booy bien nga xam naa ne magante yi sax demeewul noonu franchement mais honneur la quand même. ñi tata ñi maman cër la cër la franchement. ñu koy sante yàlla nag wax dëgg yàlla ndax léeg-léeg ñëw nit ñëw fekk ma ma def sama jiir mu sone ma ubbi mu ne ma madame Thioye ma ne ko man la mu ne ma du yow madame Thioye laay <laughs> dëgguma la maa mënee côté bu né rek loolu moy problème bi lii di saxaar ni na ma lool lii lu wa li aquarium aquarium en encensoir la xam nga comme dañ nek ci jamonoy hmm. euh dañuy préférer def ci ay cocktail de parfum rek bàyyi ko gis nga muy diffuser non. loolu doyna war waar te day humidifier en même temps pièce bu mu nekk daf koy sédal c'est beau à voir avec les jeux de couleurs et autres mën na nekk ci salon mën na nekk ci chambre à coucher boo fayee sa lampe yaa ma gën a xam ah bii toog na bi moom macha allah gis nga li loolu di def la lii di def parce que da ngay jël sa portable rek def ci ay son yeeg affaire yu baax dëgg la connecté ko ci rek guddi nga am noo ko tegee boo fayee sa lampe macha allah baaf lii lu nekk la baaf lii mhm. Mhm. lu nekk la mu ngi toj dëkk bi macha allah kon nag li ci xam daal bari na voilà kon daal lii mën daal jàpp mën na ñëw ñu defante ci ak moom yu baax parce que xamante nañu waaw macha allah voilà macha allah kon li ñu doon wax sànq. voilà ñu dellu ñu ñu delluwaat ci suñu question boobu. voilà parce que xeetu baax baax yooyu ngay wax. damay ne jigéen na mën booram rek. parce que franchement bu ngeen ma indi indilul woon thème dama leen doon proposer thème boobu. Mhm. ndax chéri dëkk bi dafa toj instant bi mhm. jigéen ñi ñu ngi dawee côté bu nekk di jéem. mais problème yi dafa bari. góor ñi daanaka li fees seen bët bareetul. Mhm. Euh, dañuy bàyyi kër gi. génn si biti di nekk ci leneen mm-hmm. mu nekk loo xam ne des dinay naqari torop ci xol jéeg yi parce que li ma la wax rek léegi da ngay mujj nekk benn source boo xam ne mm-hmm. bu ma doon bind livre tey su ma bindandoo cinq sax dinaa am réserve macha allah mm-hmm. parce que li nga xam ci problème mu ménage yi moo bëri te dara du ko dindi ndax luy luy exister la lu nit ñi dund looy bokk ak ñoom sax dund en quelque sorte koo ci jël en ligne mën ngeen a def trois heures de temps ci ligne bi du pare problème yi daal chéri bari na ci côté boobu bari na parce que jeeg ji dañuy daw ba sonn mm-hmm. ñenn ñi nag wax dëgg yàlla qu'on se dise la vérité doxuñu ci woon en toute franchise jigéen nag bu nekkee ci kër mel ni góor lu mu gis moo ko teg boppam qu'on se dise la vérité ndax bu ñu ne jigéen ne góor rek dafa am lu war a am dafa mm-hmm. war a am différence mm-hmm. dafa war a am différence man nangu naa yàqal man loolu laa leen di wax jeeg bu ne na yàqu góoram ba muy yàqu su ko bàyyee mu dem lu mu dem dem dina ñëwaat. te bu demee ba sës dina wàññeekuwaat parce que dina xam ne li muy wër fii la ne. ñoo ko déggandoo loolu mooy dëgg moom fépp lay laaj. non loolu mooy dëgg man ah. loolu laa gëm. man loolu laa gëm. parce que léeg-léeg sax góor nga yor ko mu neex lool ba mu fàtte ne lii dafa neex ndax xam nga boo dëkkee ci dara. Mhm. da ngay dem ba dootoo sentir sax. plaisir bi day dem ba dootoo sentir sax effort bi mhm. mais il suffit nga boole ko ak leneen wala nga dem mo si feneen boo dellusee di nga xam li nga bàyyi woon lu mu doon dëgg la jigéen bu ne dafa war a wóolu boppam bu kenn bu sama jëkkër doxaan xolal na ñëpp doxaan wóolu leen seen bopp na ñëpp dem ko déggandoo na ñëpp dem waaw xar boo ko yeewee ci gétt gi xont ko ba mu suur dëgg la yàlla bu la neexee sax jox ko jus mu naan boobu xar boo ko tekkee mu dem est-ce que balaa jant bi sa du ñib si force la day ñëw maa la wax loolu boobu xar fanaan mu ko àll lolu moy li am importance goor da koy yak da koy yor occuper ko. investissement la nak dafa jar ay bagage dina jar sa temps dina jar sa doole mais lu mu jar nako jar. parce que tamen lolu lañu sante comme ñun ay jigen lañu dañu sante sëy ak soumission. Mm-hmm. dañ ci wara a góorgóorlu ba mu jeex man je suis pour. Mm-hmm. ndax nee ku góorgóorlu ci sa sëy rek da koy gis ci say dom mm-hmm. ku ñu luk sa jëkkër yak say dom kon nak nañ góorgóorlu ci lolu ba ëllëg. suñu njaboot nekk suñu seetu sëy nañu góor góorgóorlu ba ëllëg suñu njaboot nekk suñu seetu sëy mu am torop importance moo tax dama naan ñiy doxaaneek mhm. ñiy doxi ba xaaja guddeeg bàyyil mu dem mhm. su ma xamee ne dangaa bëgg a génn sax xoolal coow duma boole ak yow

naa ko ko doon def ma di ko ko digal mhm. mais macha allah chérie dafa dem ba am ci succès nee na ma tey dama ko génneel yére pour mu dem dafa sangu ñëw fekk ma génneel ko ay yéreem ñow wallaay ne ko lan laa lay ban daal laa lay génne mu ne ko xam naa yow ci man ci dem laa dëkk. dëgg damaa demul. dëggati <laughs> yéen a dégg tey daw ma. kon dinañ bàyyi muy dem dinañ bàyyi tey daw ma fenn. mais macha allah. mu nekk loo xam ne daal dafa am importance ndax jigéen man li ma ci bëgg mooy mu wóolu boppam. jigéen na wóolu boppam ba mu doy. li ci des si secondaire amul benn problème. Mm-hmm. toppatool sa borom kër ni la waree. Mm-hmm. yow bul xool lu muy def. bu lijjanti téléphone am bu lijjanti ay message am buy lijjanti fu mu dem fu mu yendu lu mu fay lijjanti lu muy wax sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci régler li nga war a régler ak sa ak sa waa kër régler li nga war a régler ak sa borom kër li ci des tu laisses passer sa pas ton problème man noonu laa bëgg di dundee mhm. loolu laay digal jeeg ji ñu koy dundee macha allah waaw léegi madame Thioye euh, solution lañ bëgg nan nga mën a def ba tii sa jëkkër ba nga xam ne mooy loolu bouger du ko def benn mouvement du ko def yàq ko jëkkër dañu leen de may leen ko nopp bu baax bu leen ko jox bu bon mukk <laughs> jëkkër daal chéri boo ko bëggee téye mhm. yàq ko mhm. bu ko sax nag jéem a téye mooy li ma la wax sànq rek jëkkër boo koy yàqee xam nga tey boo fexee lépp luy actualité nga di ci dox lépp lu jëkkër war a gis ci jabaram nga fexe ba mu jëkk koo gis ci yow di ci dox di ci wax may ko jàmm diko togal mu lek ba suur ay yëreem di set muy xeeñ parfum yu neex mm-hmm. fi muy tëdd di neex nga diko waxal wax ju neex mm-hmm. lépp lu mu bëgg suba ba jant bi so nga di ci dox mm-hmm. kooku buñ la fa bàyyee demit du yàgg fenn wala fuñ munti demit seen xel mu ngi ci yow xanaa sa xel war naa dal ah, solution boobu moo gën a pire parce que euh, man je vois que ni góor tey pour mu war a dem am beneen jabar ñaar ba ñett ba ñeent ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu. mënuñu ko bañ. mënuñu ko bañ te il faut nag ñu di ko sóor parce que loolu moo war a nekk. ñu ci dara dëgg la pour nag ñu noppalu il faut loolu ñu jéem ko teel a sóoraale tege ko fële. mooy tax duñu sonal. dëgg la yàlla xam na ne loolu mooy tax duñu sonal parce que lu ñëw dina fekkoon ñu préparé ko taaj. dëgg la ni ngay préparé loolu yi tamit mooy góorgóorlu ci lépp li nga xam ne mooy actualité pour bégal sa jëkkër yàq ko. Mm-hmm. téye ko. loolu mooy téye góor parce que téye góor du tëj bunt bi rocc caabi ji téye góor du mu war a sol yëreem nga tëj armoire bi mm-hmm. ay problème lay indi mm-hmm. te loolu boo ko defee góor gi war a dem yàlla xam na ne même bu xamut fan la jëm dina solu génn taxawaalu ji ba guddi gi sori nga da koy door a gisaat góor dafay defante parce Euh, jikkoy buur la yor mhm. góor jikkoy buur la yor dafa kawe mhm. dafa bëgg ko fonk jikko fonk kàddoom dafa bëgg ko ko respecteur jikkoom mhm. dafa bëgg ko topp ay principe te kooku il faut nga nga nax ko nee nañ góor it xale la lool it dañ ciy delluwaat góor bébé la mu ngi noonu naxal boroom récupérer ko sàllal la te ñu fexe na ngir yàlla kër yi di neex parce que gis nga bu ñu fexee ba kër yi naqari kenn duñu ci ëppale bataille kenn du ci gagné boo ko boo xool sax au contraire ñu ñooy gën a perte dëgg la parce que tey góor gi boo ko bundu mu génn ci kër gi dem feneen mhm. lu mu fa taseel mu fëkk ko yaa ko ci yow yaa ko pousse ci loxoy autrui lu mu taseel jël yow la sa sa défaut la sa problème la boo ko mayoon tey mu lekk ba suur nga naxante ak moom mu toog mm-hmm. ngeen waxtaan seen waxtaan bu neex nga tayaal ko mu naan mm-hmm. kooku retenir nga ko lu mu ci teg gëmmentu tëri qu'on se dise dans la vérité jigéen góor ñi nañ leen di gérer jigéen ñi nañu toppatoo góor yi comme ay bébé nañ leen di nax ba di leen yàq waaw ñoo ko déggandoo solution bi boobu la te gëm naa ne boo leen ci doxee li ci wax doo leen mës a juum toppal leen ma madame Thioye kii rek <laughs> doyul bay des waaw waa tey ji euh, madame Thioye gis nañ euh, bagage yu baax baax yi mhm. ah, tey seetlu naa la ci ginnaaw sax moo gën a ëpp gën a lii macha allah mais ku bëgg ci nan ngay def ba ñëw ci ba am ci waaw ñii ñu ci bëgg ñu sori ñi moom xam nañ ko benn adresse la ak benn numéro téléphone 77 080 63 23. Je leen bu mu leen rëcc voilà non xamante ma ak ñoom. parce que mon caméraman mi yor sama bagage bopp moom xam na nu mu demee. <laughs> moom daanaka numéro bi nëbbootul loolu léegi macha allah populaire na lool. voilà ñi ko soxla it numéro de whatsapp la en même temps. te it nañ may baal nag loolu dinaa ci def ben parenthèse appel yi. Mm. parce que wax dëgg yalla bu le 3000 nangam 4000 contact nekkee ak yow ku ne bëgg wax ak yow. Si bëgg vocal euh, message en quelque sorte léeg-léeg mu message sérieux yoo xam ne ay problème lay doon mm-hmm. nga bëgg ci di wax wax boo xam ne danga ciy dama xol ba sori mm-hmm. vocal parce que dama koy bëgg def benn vocal bu rek long métrage mm-hmm. mais léeg-léeg kenn jógee fee woo nga nga rejeté ko mu woowaat la nga rejeté ko mais mën na tegale dix appel dina la perdre loo non seulement temps mais dina yàq li nga doon liggéey yëpp du question dañ bañ a jël kenn bu ñu sañoon ñëpp la ñu waxal te it ñoom xam nañ ma ndax ku ma mos a bàyyil message balaa jant bi di so jéem naa pour répondre la donc côté boobu dañ ci sant yàlla bu baax a baax ñu ñuy bàyyil message rek ku ci bëgg a gis bagage dinañ la ko won ku ci am question booy posé boo ko ci bàyyee dinañ la ko won dinañ la ci dinañ la ci waxtaanal débat ci am lenn bëgg orientation il suffit nga wu rek wax fi parce que comme client yi xaw madame Dia madame Dia parce que madame Dia yi madame Dia. il faut ngay wax ak def ko am un peu la différence entre contact yi. mooy tax tey doo juum ci livrer nit wala nit commandé la doo jaxase. rek bëgg rek bi am amélioration. même bu ma fi nekkul ñi nga xam ne ñi ngi ci dakaar ñi nga xam ne dañuy jógee dans les régions di ñëw parce que Saint-Louis Touba macha allah fu nekk laay wax Kaolack may remercier sama sama copine yi Medina Baye yooyu macha allah sama sister yi les ñas-ñas et autres ñi nga xam ne ñi ngi nekk foofu yëpp di ma suivre de passage mm-hmm. ak sama tataay ak sama goro bopp boobu macha allah tata Bintu Gaye mi nga xam ne mm-hmm. mooy sama yaayu bopp di sama yaayu jëkkër xanaa bokk nañ yaay <laughs> neex na dégg ngeen macha allah léegi di di nuyu sama papa boobu nekk foofu aussi di turandooram muy Pa la Hadj Thioy waa ak toute mm-hmm. sa famille soxnaam yi les Khadika Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu vraiment waa kër googu bàyyiwuma kenn ak sama tante fa nekk mu nek dal chéri lu am importance parce que pour man ma jot ci message du jafé ndax whatsapp la déjà kuma envoyer message dina le mun répondre mm-hmm. y a pas de souci kuma bayil message mu présenté wu lepp lo bëgg dinañ ci kii nante problème personnel la mm-hmm. même bo jëndul bagage dinañ ci jéem luñ mën parce que nekul ne force da nga jënd suñu bagage pour ñu wax ak yow amuñu jot boobu comme dafa am mission boo xam ne yàlla lañ santi ne moo ñu ko tegal boppam il faut ñu di ko nangu di ci doxal suñu bopp ci kàttan yàlla ak mbaaxam mu ñu may na xel mu rafet ak kàttan buñ mun a assister ñëpp di di dox ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñun dëgg la madame Thioye mm-hmm. mm-hmm. euh, mais plat plat boo xam ne bii moom bu ma ko defee sama jëkkër moom macha allah boobu laa bëgg plat bi la waaye yaa ngi ciy ñëw plat <laughs> yi nag chéri bari nañu mhm. mais nag damay wax ne tout le temps jigéen bu nekk mhm. moo gën a xam li jëkkëram bëgg mën nga conseiller ñu def ay grignotant fii yeneen yu sew sew ay bagage ah dégg nga boobu mënul ñàkk mhm. mais nag ku nekk tey war nga xam li sa jëkkër gën a bëgg te loolu yemul ci plat jigéen war na war na comprendre jëkkëram ba couleur yi muy xaar ci moom sax mu di ko gis ci moom jigéen day topp jëkkëram ba ci ay couleur mhm. ay odeur mhm. ba ci ay plat mhm. senteur goût lépp lépp luy agréable ci moom parce que nit boo ko xasee xam danga xam lépp li nga xam ne mooy bëgg-bëgg dee ci dox am na góor yoo xam ne dañoo détesté yenn couleur bu ko jegee bu ko laal am na góor yoo xam ne yooyu plat lañ gën a bëgg ci yeneen surtout que buñ fa nekkee yi ñu gën a bañ bu ko jege toggal yi nga xam ne moom lañ gën a bëgg comme nous avons dafa différence ci nous dans le cas général de joxe woon naa fi benn omelette pizza boo xam ne mu ngi tas réew mi gaa yaa ngi koy def. léegi yoon nag man nag nag joxal joxal ñi seetaan benn nag benn plat boo xam ne macha allah dafay baax macha allah jigéen dafay ñeme aussi toggan togg waaw mhm. grignotant yi daf ciy baax sama classe bu taay ak nga xam ne du dugg waaw léegi mu ci nekk ci salle bi di seetaan match nga dugg ci nga dugg ci waañ bi fekk nag doon nga prévoir defar sa benn pati fataaye bu baax mhm. daal di denc ci sa frigo mu mhm. ci ngi seetaan match bi préparel nga ko peut-être ay sucré wala salem ñëw tegal ko maanaam

pratiquement pour mun a occuper torop torop torop place bu ñuy xaar ci ñoom. Mm-hmm. parce que gaay ñu ngi lay xaaré facette bu né te bo bëggee yëkkati ku nekk individuellement nga wax ak moom day xaw a metti mais boo defee émission boo xam ne des milliers de personnes dinañ ko seetaan en même temps ça fait un un un xawma nu ma koy expliquer ça fait des points de plus daal c'est des avantages mm. loolu wax dëgg yàlla moo ñu gën a arrangé mm-hmm. voilà kon yooyu yëpp dinañ ci dox dinañ ci gën a wax mm-hmm. mais yooyu nañ koy bàyyi xel yu sew la mais yu marqué point la góor na biiram di fees fu mu toll loolu mooy dëgg sax bu mu xiif góor gu xiif baaxul <laughs> non maanaam góor góor gu xiif baaxul góor gu xiif baaxul. nañu fexe góor yi seen biir yi di fees parce que diggante añ ak reer ku ne xam na ne léeg-léeg mu sori yàlla bu mu am benn programme mu match wala basket wala dara lu muy suivre à la télé. Mm. wala mu nekk ak benn xaritam na ataay ji di daw mais na nga ko booleeg leneen mm. ndax ataaya kese boo xifee day day xoos biir mm-hmm. waaw waaw ñoo ko déggandoo <laughs> dégg ngeen madame Thiel ah léegi moom jigéen ñi mënatul togg instant yi xam naa ni bareetul ndax boo duggee euh, Facebook wala YouTube foo mën a dugg Euh, émission cuisine yaa ngi fa nga def sa bu baax def sa xeet bu baax baax yéen a ma gën a xam mm. mais madame Thioye looy ak askan bi sa dernier mot waaw sama dernier mot nag chérie yi mooy xanaa di leen remercier encore une fois mm. di leen wax ne namoon naa leen donte une semaine la day gudd ci man mm. parce que xam nga dañoo miinante ba pare doyalu ma sax voilà man sax doyalu ma <laughs> xam naa ne ñoom ñi ñuy seetaan aussi doyaluñu mais dañ koy dagg fii rek di leen jox rendez-vous très prochainement de les remercier de les remercier de les remercier encore une fois. Mhm. di remercier son parents yi nga xam ne li may def neex na leen torop encourager bu ba ci sama boss bi nga xamné ne macha allah ci service am la nek parce que li may def dama ko bolé ak sama liggéey je travaille dans une entreprise internationale macha allah. Mhm. et sama boss di encourager bu baax a baax a baax day wax né tout le temps nañ ma jox temps bu bari. Mhm. pour may mën concentrer wu aussi ci sama business. Mhm. lolou c'est pas donné à n'importe qui surtout mu nek net ko weex tek ci ma diko remercier diko ñaanal. xëj na du dégg olof bi may wax waaye ci sama xol ñaanal naa ko bu baax a baax. di remercier sama monsieur mi nga xamné ne lépp lu ma jàpp suba ba jant bi so mu ngi ci ak man. Euh, di di di suivre le may def di ma jox ay conseils ay suggestions mu di ko ñaanal yàlla yàlla na taxawaayam yàgg cooy njaga macha allah sama xaritoog yow yàlla na dem ba àjjana ndax xam naa li nga ma yéene leer na ma nañi kon nag leer na ma ne daal du yem fii à suivre lay doon macha allah di la ñaanal rek un bon retour yàlla la yàlla delloo si ci jàmm ak salaam ndax nam naa la dama koy waxaat <laughs> la répétition est pédagogique dégg nga muy noonu chéri di remercier diaspora bi yëpp <laughs> di remercier sama xarité xol ba nek Angleterre Aissatou mom xamna bopam madame Ndaw macha allah maa ngi remercier tout le monde wa États-Unis wa Angleterre Arabie Saoudite euh, Australie sax amna fa ay contact légui grâce à Sénégal TV. may sante yalla bu baax ci lolu xejna GP Australie moñu xawa teugum nak fofu mom mm-hmm. xamna dina xawa jafé mm-hmm. mais comme amnañ Canada xejna légui légui tay fofu foofu tamit ñëw macha allah. mais partout dans le monde bu kenn ragal émission yi bu ngeen ko seetaanee bagage yooyu ngeen fi gis loo leen ci mun ci bëgg dafay ñëw parce que peut-être ak GP yi sax c'est un peu difficile avec les aéroports et autres mais am na ci yu bari yoo xam ne dañ koy àmbale yóbbu ko à la poste et les bagages passent parce que foofu contrôle bi demeewul noonu te macha allah bi ma duggee ci liggéey bi ak léegi dugalulu ma kenn bagage am post mu des fa ma di ko sant yàlla je touche du bois mm-hmm. donc mun nañu am confiance ci côté boobu GP yi aussi ak ñoom ça marche vraiment macha allah. di def un coucou sama turandoo ci ci Luxembourg Wa GP voilà di remercier ñëpp rek les Caba Caba euh, France voilà GP France ak Ndey Fatou tout le monde je peux dire parce que tay dem na bañ yegg fo xamné ak Awa Awa Espagne voilà euh buñu waree dem sax dañ lay envoyer message wax leen ne wara war dem voilà ku ci dem tay il faut mu informer ne na mu ngi dem pour bagage yi nga yor nga mën ko ko jox mu yobalé ko kon nag loolu partenariat mënu ko weesu ndax suñ fi tegoon bagage yi amuñu ñu ko yóbbu dina doon difficulté ci ñun ah, kon nag ñu ngi remercier suñu partenaires yooyu yëpp mm-hmm. di remercier clientes yi ci diaspora bi yëpp mm-hmm. di remercier famille bi sama doom yi voilà mais bébés ñi nekk ci boutique yi voilà boutique yi Louga bi ak boutique yi Dakar bi Kounta Fall ak Ndey yi ak ñi nga xam ne yëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi taxaw pour jàppale ma ci sama liggéey sans oublier ma sœur bi nga xamanteni machallah madame Diallo sama comptabilité yëpp daf ma koy bëgg di gérer dafa melni boutiqueum boutique la en quelque sorte xamna né sama temps wul ndax damay liggéey mais bayiwul ben effort d'al, ci mom pour pour pour gëna a liggéey defar sama liggéey mu jëm ci kanam. Mm-hmm. di remercier sama càmmiñ bi nga xamné machallah macha allah ma toll dama ko koy sante du ma rus diko wax fu ma toog dinaa ko wax parce que fuma ma yegg tey dans le monde c'est grâce à lui ndax bu ma wanoon lu ma ragal Sénégal TV du ma continuer ak ñoom ba tey te tey fu mu toll mu may encourager fu mu toll mu ngi xool na sama liggéey di gën a baaxe du ci sax yem léegi ku nekk day ñëw ne ma Moussa moom ma fi yebal mm-hmm. mu nekk loo xam ne yematul ci cadre liggéey kese mais dafa dugg ci cadre famille waaw ndax nit ku ne gën a jege ku nekk xam nga ko te wax dëgg yàlla il comporté comme un frère ma di ko ñaanal yàlla li mu wut ci liggéeyam moom tamit yàlla na ko ko yàlla may mu am promotion bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci liggéeyam macha allah di ko ñaanal euh, suñu DG monsieur Mbengue voilà moom it yàlla na ko yàlla yokk gën a yokku internet yi gën a yokk gars yi intéressé wu ci teleem bi parce que macha allah lu baax rek moo ci nekk ak yëkkatiku ndax nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi ko suivre partout dans le monde mm. ñuy souhaiter toute l'équipe ñu amagul jëkkër ñu ngi leen di ñaanal jëkkër les bamba et autres ñu ngi leen di ñaanal promotion xaalis bu bari ak soxna ak kër ak oto yëpp si biir ndax ñoom ñëpp ndeysaan samay xarit lañ léegi mm. vraiment mm. maa ngi daal ñaanal yëpp jot a jaarit ñoom mama Adja duñ leen fàtte benn yoon ndax wax dëgg yàlla kóllëre parce que tey yu njëkk yi maak ñoom la woon tey maag yéen la peut ëllëg man ak ñeneen mm. ndax àddina noonu la ko mm. yàlla bindee mm. ñu ñaan yàlla lépp nice na lépp nice vraiment ñu jëm ñun ñëpp ci kanam ndax ku nekk bu nekkee ci liggéeyam yokkute la ci wut maa ngi ñaan yàlla mu yokk ñu ñëpp dans le cadre général fu ñu toll ren bu déwénee ñu toll feneen fu ko ah, sut ak ñi nga xam ne nag ñu ngi ciy bëgg parce que bagage yi tey ku bëgg tey jii am ci li ma di nga am lu ëpp ndax ñii ñu ngi leen jox ay caabi kër ñu ñu ngi leen ciy changer seen chambre à coucher non lu xalal xale yi lu ne lan leen ci parce que lii moo feeñ rek li nëbb moo ëpp moo ëpp waaw parce que ne serait-ce que waxtaan yi ak changement d'attitude yi ci biir kër yi dafay am trop trop importance mhm. ñu ci kontaan lu baree baree baree bare parce que fu ñu toll ñu ñu ciy jox ay cadeau yu baree bare mhm. di remercier ñuy ñaw di ñu jox ñuy sol mhm. ñenn ñi di yone ay maquillage ñi ay parfum lu nekk cadeau bu nekk lañu recevoir parce que wax dëgg yàlla bëgg moom mënul passé bëgg kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp encore une fois di remercier ñëpp di leen jox rendez-vous la semaine prochaine waaw ñoo ko déggandoo bagage yi tawul kenn ku bëgg macha allah day ñëw ba si yow yow daal comme ni ko sama euh, mag ji Moussa di waxee rek yow daal bëggal rek